maitre Amadou Aly Kat ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di la dalal nga doon avocat à la cour doon it euh, vice-président bu RADDHO tey jii ñuy màggal euh, lii di journée internationale euh, jëm ci démocratie tey jii ndax mën nañoo wax ni suñu dëkk am na démocratie. waaw mën nañu wax ne am na démocratie. Mhm. parce que démocratie mooy lan. démocratie mooy système boo xamante ne. jiit yi dañ leen di fal. population yi ñooy seet ñi leen doy ñu fal leen. ba noppi itam démocratie dafa nekk système boo xamante ne dañuy doxal intérêt général dañuy li nga xamante ne moo baax ñi gën a bari ñu doxal ko euh, démocratie mooy lan mooy aussi nguur goo xamante ne aussi dafay respecter yoon mhm. dafay respecter euh, ak ak yelleefu doomu aadama donc loolu mooy démocratie ci gàttal mhm. Sénégal nag am na démocratie mais démocratie bu ko waxee aussi nañu jàpp ne ci démocratie nekkul loo xamante ne rek da koy am rek une fois pour toutes nga xam ne rek am nga ko jeex na mhm. dootul wàññeeku dootul yokku déedéet démocratie dafa nekk marchandise boo xamante ne mën na wàññeeku mën na yokku jamono bi ñu toll nii fii Sénégal mhm. mën nañu wax ne démocratie wàññeeku na alors kooku mën nañ ko joxe ay fi mën nañ joxe ay firnde ci fànn yu bëri démocratie mu ngi ci Sénégal nekk na loo xamante ne dafa xaw a tumuranke mhm. kooku boo ko seetee déjà ci yenn loi yi ay article quatre-vingt nga xam ne bu ñu la bëggee tëj fa la ñu koy jaaree jàppale te fa ngay nekk tant que euh, nguur bugg la génne doo mën a génn mhm. boo jëlee da nga maam offense au chef de l'État euh, loi boo xamante ne bu màgget la boo xam ne dafa dépassé ba tey am nañ ko ba nga bëggee bëggee tëj fa la jaar boo jëlee da nga maam parrainage bi tey jii nii boo bëggee nekk candidat dañ lay laaj ay parrainage te parrainage yi ni mu tëddee ñëpp gis nañu incident yi ci nekk bari na ñoo xamante ne dañu am mbooloo représenté un courant politique mais jotuñu présenté u ci élection yi parce que simplement parrainage yi seen paiement nee nañu doyul te kenn xamul nañu ko compter donc loolu aussi c'est un problème ci démocratie mhm. mën nañu mhm. lim di gém mën nañu jël aussi affaire manifestation yi manifestation yi ci bëri mhm. même ñoo xam dafa simple dañu koy tere keroog rek yaanaa maar ñu doon yóbbu lettre orange mais dañu leen euh, réprimer làpp leen jàpp ci jàpp ci ñoom yóbbu prison yóbbu police am nga loolu pour yóbbu lettre kese ci benn bërëb wax ñu ngeen doxalee àdduna yi loolu ci réew démocratie warul nekk. Mhm. donc bëri na daal ay fànn yoo xamante ne. mën nañu jàpp ne da nga maam démocratie xaw na tumuranke ci Sénégal day soox. boo ko doon noté ci échelle lu dix euh, fan la suñu réew toll ci ban niveau. bon je dois dire que on a quand même la moyenne. on a quand même mhm. ñun war nañu la moyenne. parce que réew la boo xamante ne mu ngi woote depuis mille huit cent quatre-vingt-sept. Mhm. donc ñun ça fait plus de deux cents alors ñuy wote yàgg nañu xam démocratie yàgg nañu fel ay njiit am nañu ñetti alternance mm-hmm. am nañu alternance en deux mille amaan alternance en euh, deux mille douze avant ça en mille neuf cent quatre-vingt Senghor dem na jébbal nguur gi euh, Abdou mm-hmm. loolu aussi façon alternance la donc nekk nañu réew moo xamante ne dafa am cosaan ci wàllu démocratie mm-hmm. bu yàgg nekk nañu réew moo xamante ne aussi président jóge na Euh, beneen président wutu ko am na au moins ñetti yoon fii ci Sénégal. Mhm. donc ñun am nañu expérience boo xam ne am nañu capital boo xamante ne ci wàllu politique war nañu romb la moyenne. te ji waroon nañu nekk denga nga moom ci leader yi ci wàllu démocratie. Mhm. mel ni ay ñoom Ghana nga xam ne bu ñu wootee élection coow du jib alors bu ñuy def élection aussi kenn du contesté seen i Sénat bi kenn du am lu laam ci dara. tudd nga ko tey jii Afrique bo doon xayma ci wàllum démocratie nan nga ñuy jàngatee démocratie ci continent bi. waaw xam nga démocratie ci continent bi dafa dafay dellu ginnaaw. ah parce que boo seetee réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon exemple. Mm-hmm. comme ay Sénégal ci ñoom sax réew yooyu. mu mm-hmm. ay problèmes. ne ñoom. ay njàngal lañu woon ay dañu doon nekk nekkoon ay talibé ci démocratie mhm. alors yéréew yooyu nag avancé wuñu parce que exemple yi nga xamante yi ñu war a roy barewul mhm. alors tey jii nii lii gàllankoor démocratie mooy bëgg nguur bëgg nguur tax na ba nga xamante ne nit ñi dañuy teg benn charte mhm. constitution bu limité mandat yi wax ni mandat yi bante weesu ñaar dëgg la jékki ñu changé ko ñu déedéet léegi nag Euh, constitution constitution bees day am comme constitution bees am na. Mhm. mandat ya woon kon dañuy defar compteur bi à zéro ba commencé waat encore loolu gis nga ko fu ne Afrique ba pare boo jógee kaas ñu rey la bari na ay yoo xamante ni ñu ngi ci day xeex ngir troisième mandat bari na. ndax da da ndax loolu euh, problème leadership euh, mën nañ ko ci euh, tudd. waaw loolu am na problème leadership xam nga leadership mooy lan. Mhm. leader mooy ka nga xamante ne dafay xàll yoon. li ñuy topp si xam ne dafay nit wane yoon. ñu mhm. topp ko te li muy nit intérêt général donc mooy tax muy jëm direction boobu mais buñ demee ba nga xamante ne intérêt njiit gi ci boppam. Mhm. intérêt partem intérêt coalition loolu. moom mooy tax da nga mam li yëngu di alors bu booba mën nañu ne crise de leadership am parce que leader leader bu ñëpp la bu mhm. demee ba fal la nekkatoo njiitu sa parti nekkatoo njiitu sa coalition mais da nekk président de tous tey jii Afrique nee nañu waaw Afrique nee nañu euh, problème bi du lii di coup d'état yi ñu fiy nemmeeku mais problème bi mooy troisième mandat yi ndax yow xalaat googu ànd nga ci. mais am naa ci xam nga coup d'état am na. par exemple comme au Mali. mais circonstances yi mu amee dafa mel ne nit ñi sax dañu xaw a supporter coup d'état boobu parce que jàppoon nañu ne ki fa newoon dafa lajj hmm. te crise politique dafa amoon jàpp nañ ne coup d'état bi am. dafay permettre crise bi mu réglé mhm. moom noonu lañ ko gisee. même bu dee jamono yi ñu toll nii ñun ñaa ngi commencé aussi am ay sikki sàkka ci militaires yi def coup d'état bi ci seen jëmukaay ci seen yéene. Mhm. mais euh, nañu jàpp ne rek te troisième mandat dafa nekk loo xamante ne ak élection moom moo sànq démocratie ci Afrique moom mooy faiblesse démocratie ci Afrique. mën nañu def élection mu jaar yoon mën nañu limiter mandat respecté ko. ñu mhm. defee élection mu mu mu kii saa ñu defee élection mu mu am ay coow ay contestation saa mhm. aussi yu def defee limitation de mandat am ko ko donc ça ça pose des bu ñu dellu see suñu dëkk wax ci li nga xam ne mooy euh, local yi ñoo ngi laam-laame ne dañ koy dàq ban jàngat nga def ci dàq googu nga xam ne ba fii ñu yegg si nii ñu ngi ko def. man daal dama jàpp ni amul guerre amul crise dañoo respecté raison yi ñuy yëkkati ñi naan pandémie bi la ñi naan koppar ñi naan euh, révisé wu ñu assez maanaam délai bi matul yow yooyu àndoo ci. waaw bu ñu nee koppar bi bu fekkee am na crise financière kon nañ ko wax mu leer te réew mi dafa nekk crise économique ak financière amul xaalis pour def élection. Mhm. bu boobaa ñu set naka la ñuy defee mais aussi pas ma ñu fi nekk rek ñu yokk seen ñu am mandat cadeau comme disent les Ivoiriens xam nga ñu faloon la cinq ans ñu dolli waxal yeneen deux ans wala yeneen trois ans mu nekk mandat cadeau nañu seet aussi toog ci collectivité locale yi. Mhm. xool aussi naka la ñuy def dégg nga réorganiser affaire yi entre les forces politiques mhm. bon man jàpp naa daal euh, en principe ci yoon réew boo xamante ne amuloo guerre amuloo crise war nga respecté calendrier républicain. Mhm. maintenant nag bu crise amee mbaa am alors on peut comprendre. ku ñu euh, a respecté cavaliers bi ñu ko te bu boobaa aussi anam ñu koy reporté ak institution yi ñuy teg. Mhm. dafa nekk consensuel dafa nekk war loo xam ne dañu ko waxtaane jubóo ci mais waxtu nekk rek man jékkuwuma suñu demee élection amaan ma perte bon nax na trouver un moyen lu ñu reporté élection yi. Mm-hmm. loolu bokkul ak démocratie. Mm-hmm. dañ uh-huh. kan wax ci ki nga xam ne mooy Djibo Leyti Ka ba fàttaliku homme politique boobu di homme d'état uh, le 14 septembre gi tey jii ndax jàpp nga ne Djibo Leyti valeur yooyu nga xam ne mu ngi ko doon incarné ndax yow yaa ngi koy gis ci seen politique bi. xam nga Djibo Leyti man uh, dafa nekkoon suma mag mu nekkoon aussi koo xamante ne son conseiller laa woon nekk son avocat. Mm-hmm. ma jege woon ko euh, donc nekk la koo xamante ne mën naa wax ci moom alors su may wax ci moom li may jiital. Mhm. mooy son courage. dafa nekk koo xamante ne du tiit du raf du dellu ginnaaw moom bu yaakaare ni lii moo jub lii moo baax même bu fekkee àddina bi yëpp àndu ci moom daf koy def du ragal loolu nag mooy homme d'état homme d'état dafa nag koo xamante ne bu fekkente ne jël nga décision. Mhm. te mu nekk conforme à l'intérêt général xam nga lii mooy intérêt général dellu ginnaaw. gis nañ ko ay réew comme la ñu nekk dans la rue pendant des mois mais état bi dafa téye fi mu téye rek parce que jàpp ne loolu moo baax ci réew mi mhm. moo baax ci France donc dirigeant du nit ñi bougé nañu rek nga changé ànd ñoom dirigeant warul mel noonu ba noppi itam li ma seetlu ci moom moom dafa gëmoon compétence jiitalul xarit jiitalul mbokk mhm. ci liggéey bi jiitalul aussi bokk parti ci liggéey bi moom dafa doon wax nekk que l' état n'a pas de copain l' état n'a pas d' de parent mhm. toujours donc état intérêt général la xam moom noonu la doon doxalee mbiram da nga daan gis ministère am par exemple je me rappelle am na bis mu remplacer monsieur Pape Diouf. Mhm. nekkoon ministre de la pêche mu remplacer ko au ministère la pêche de l' maritime mais ba mu ñëwee ka nekkoon directeur de cabinet Pape Diouf moom la reconduire choisir comme directeur de cabinet bokkuñu Pape. solo mais il a vu que c' est un administrateur civil c' est un cadre compétent c' est un Sénégalais. Mhm. mu tee bàyyi ko mu def. fii gisuloo benn ministre bu changé ministère. ñëw téye le de cabinet qui était là man ci mel ni moom la ko ministère ba boo xoolee aussi ba mu jeex. Uh-huh. doo ci gis mbokkam mbaa koo xam ne parti la la bokk sauf su fekkee compétence la yor. Uh-huh. mais nekkul ka nga xamante ne day jël ay fonction état yi def ko comme bonbon di ko distribuer ay xarit ak ay copains moom doxul loolu noonu donc nekk na koo xamante il avait une mystique de l'État mhm. loolu na bariwul tey jii Sénégal tey jii dañuy wax rek discours yi changé mais ce qu'on fait le plus souvent c'est autoaxémimètre xam nga mhm. da ngay jóg rek ñu indaale yow tamit sa gàngoor ke la jóg indaale gàngooram mais amul kenn koo xamante ne day ñëw dégg nga maam ni man day damay distinguer la nga xamante ne politique moo ko moom man ak su ma ñi ma ànd ñu bokk la nga xamante ne réew mi moo ko moom liggéeyu réew mi la compétence laaj képp ku compétent même doonte bokkuñu parti mën naa la ci jox. d'accord mais loolu noonu la war a doxee. maître wax ci mbënd mi jeexaleek moom jamono ji suñu réew di ko dund euh, bëri na ay gox yi nga xam ne euh, maara day taali ban jàngat nga am ci plan décennal bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu mbënd mi. waaw man euh, dama jàpp ne affaire mbënd mi c'est une maanaam daal euh, ku ci nekk am nga ci responsabilité ñi nga xamante ne ñoo dem dëkk ci diwaan yi nga xamante ne yoonu ndox la woon wala ay euh, rivière la woon wala ay marigot la woon. Mhm. ñu dem dëkk foofu ñooñu am nañ ci responsabilité mais responsabilité bi gën a rëy mhm. état bi moo ko parce que tam bala nga installé fenn état moo lay jox autorisation de construire. état bu xamee ne fii dafa doon tax. wala fii rivière la woon wala fii marigot la woon warul nangu jox la autorisation de construire foofu foofu dafa war a déclarer zone non édificandi wala bu fekkee bàyyi na leen ngeen installé foofu mu teg ay jumtukaay yoo xamante ne dafay tax ndox mi dem. Mhm. du fa toog. Mhm. Mhm. donc rax ci dolli ci diwaan bi ñu ne bi nga xam ne Dakar la tudd région di Cap-Vert nga xam ne géej moo ko wër. mais war na ñu a def ay kanu yu yóbbu ndox mi ci géej. dafa mel ne donc ci fànn yooyu ci wax fànnu assainissement maanaam def ay canalisation bi yóbbu ndox beeg yooyu loolu état bi dafa mel ne daf ci xaw a laaj mhm. li mu ci liggéey doyul maintenant dafa am yeneen xeetu inondation yoo xamante ne itam yooyu itam yu xaw a métti la yooyu itam état aussi defe naa ni li mu ci bon barewul mhm. boo jëlee lu mel ni ay Saint-Louis wala nga jël lu mel ni suma région Matam mhm. nga xam ne fleuve Sénégal mooy déborder ñëw envahir ay dëkk wala ay ay ay tool xam nga loolu dafa naqari euh, faj mhm. mënuloo def un barrage sur mille sept cent kilomètres parce que le fleuve Sénégal ça mille sept cent kilomètres li da ngay ndox mi loolu mënta nekk bon loolu donc euh, c'est un phénomène naturel boo xamante ne euh, ay mesures d'urgence rek lañ ci mën a def mhm. mais par contre les inondations nga xamante ne origine taw la yaakaar naa ni bu ñu tegee ay euh, ay ay ay ay ay kiiwu assainissement infrastructure yi mm-hmm. alors yu doy kooku mën na saafaraw surtout ci diiwaan yi nga xamante ne ay ndox moo leen wër parce que on ne pas comprendre Hann par exemple mu xam nga on ne peut pas comprendre que Dakar Plateau qui est côté de la pas loin la mer ñu def ay inondation même ay caaro ak yooyu parce que gauche sore fa donc war nañu mën a teg ay infrastructure yu yóbbu ndox bi di ko génne mhm. bon seet aussi euh, nit ñi fi ñuy dëkk bala ñuy déclarer benn zone habitable ñu xool ndax zone boobu nekkul woon zone boo xamante ni itam c'est un le lit d'un ancien ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñuy fàttali suñu. auditeurs yi ne euh, avocat la à la cour mais également vice-président bu RADDHO.